asalaamaaleykum wa rahmatullah professeur maa ngi lay nuyu di la ziar baax a baax. sëñ Pape maa ngi lay fay. professeur nag dañoo bëggoon xam tey. Euh, mhm. fruit bii di ananas. Mhm. Euh, muy ci fruit de la semaine. Mhm. ananas maanaam yan njariñ la ñu amal ci wàllum wér-gu-yaram. su amee tam loolu amal ci wàllum économie tam nga may ñu si tuuti. Euh, waaw Pape xam naa ni pour commencer ci wàllu économie moom gis nga ni plante la boo xam ne buy dox la. parce que le fait nga bàyyi ko jaayaat rek c'est quelque mos naa gis ci net bi yàgg na benn jeune boo xam ne xam nga Cameroun xam nga tegulee la mhm. ananas lay bay moo ko def mil millionnaire xam nga multi milliardaire. Oh, loolu def naa boo tàppee ci net bi di ko gis. Mhm. Euh, est-ce que nekk nekkul woon chômeur xaw ma ñu demee noonu wala mu nekk étudiant. Mm-hmm. mais bi mu duggee ci mbayum ananas ci la gaaw développé. Mm-hmm. donc ananas dafa nekk loo xamante ni économiquement. Mm-hmm. boo ci boo ko bàyyee mën na mën na développé mën na la may xaalis ay millions yu bari. mais foog ñu xam ne Pape yooyu yëpp nangu na Sénégal. suuf saa ngi fi ndox maa ngi fi. te mën nañ ko jox parce que ñu ma lay wax noonu sous région bi lañ ko bayee donc luñ am ci sous région bi rek war na mën a bay Séné mën nañ am Sénégal. donc il fait juste nga expérimenter ko pour man ci dem donc fruit la boo xamante ni daal boobu hectare bi moom boo ko bayoon dina la mën a indil la xaalis bu bëree bëri bëri macha allah. xam naa dinañ ci ñëw balaa a appal mu nekk fruit boo xam ne dafa riche en glucides. am na mhm. lipide am na potassium. Mhm. am na magnésium am na euh, antioxydant. Mhm. am na ay vitamines surtout B1 B6 ak vitamine C. am na phosphore euh, riche na daal ay vitamines yoo xamante ni moom euh, ananas am na am donc fruit la boo xamante ni tamit bëri na njëriñ ci wàllu faj naa njóobee ni moom tey dinañ <laughs> dinañ kontaan ndax neex na macha allah moom mm-hmm. <laughs> donc faju ci naqariwul mm-hmm. donc mu nekk loo xamante ni bu fekkente ni wàllu digestion la euh, mauvaise digestion. Mhm. donc day faciliter la digestion maanaam nga xam ne day lekk du mën a seere. Mhm. donc buy jël ananas lekkam ji yéex a rees yéex a rees. suy mhm. jël ananas dafa ne dina dem ba euh, lekk euh, rees boobu dina dina ko quoi dina gaaw. dootul dootul dootul yéex. donc ñi nga xamante ni dañuy wàllu am amee ballonnement aussi. mën nañ koy jël ballonnement mooy biir boo xam day jooy wala mu am ngelaw ak ñi nga xam dañoo am problème mu yàq les os. nga xam ne seen yax yi dafa fragile lu yu demee mm-hmm. noonu. Mm-hmm. donc moom it day renforcer yax bi parce que wax nañ ne am na calcium. Mm-hmm. donc mu nekk loo xamante ne tamit baax na ci ñi nga xam ne dañoo amee estomac. koo amee estomac mën ngay jël euh, ananas. ananas di ko utiliser lu bari. nga xam ne dañoo amee lu ñuy wax reflux gastrique. tamit bu ñu amee ananas di ko jël bu yàggee dina dina baax si ñoom. mais comme Pape ni ñu ko waxee woon rek waxuñu ko jël benn doomu ananas wala ñaar rek yaakaar ni wér <laughs> <laughs> moom mais tamit détoxifica détoxifiant la mhm. sa à dire que day génne yenn poison wala yenn tooke yi nga xamante ne ñu ngi ci biir yaramu doomu aadama gi mhm. moom boo <coughs> boo koy jël mën na mën na ko mën na ko génne waa nettoyer yaram da koy nettoyer waaw bu baax waaw bu fekkente ni tamit euh, ñi nga xamante ni dañuy am wàllu constipation. Mhm. seere dafa naa waxoon naa ko wala bu fekkee waxuma ko tamit ñi nga xamante dañuy am constipation. Mhm. am dañuy seere bu ñu jël ananas lu bari tamit dañ dem ba nga xamante ni. Mhm. seere boobu dina leen. Euh, lâché dina leen lâché dina dañ daal. li nga waxoon sànq ci anti vieillissement. ci aloe vera. moom it anti vieillissement la boo koy jël di dem ba da ngay sa yaram day leer. peau bi rafet ak yu demee noonu daal maanaam. ñi nga xamante ni tamit dañuy am wàllu bronchite. muy problème mu dënn. problème nooy yi nooy yi wala wàllu soj. ñu mhm. rhume. Mhm. bu ñuy faral di jël àll kii ananas. Mhm. ananas moom jarul ñu wax ñu koy jëlee lekk la. waaw fruit la dañ koy lekk waaw. donc nag moom ngay jël boo koy jël lu bari rhume boobu wala problème rhumatisme bronchique boobu baax na ci dina ko dina koy dina koy dindi lu bari quoi. day day prévient les maladies cardiovasculaires maladies yi nga xamante ni ci wàllu xol la ak yooyu. fekkee ngay jël. Euh, ananas mhm. mën na tax euh, bu loolu wàññeeku mhm. léegi am na benn étude américain aussi boo xamante ni ñoom bi ñu defee seen étude tamit nee nañ booy mhm. lekk ananas avant ngay def euh, rapport sexuel euh, surtout ci wàllu jigéen ay américain lañ nag quoi am jigéen nga xamante ni seen seen awra def naa seen awra lañ ko mën a wax bu dee jigéen waaw awra bi day day soit bu fekkee da ngay jël ananas bu bëri avant ngay def rapport sexuel mën a dem ba Euh, odeur boobu dootul naqari daal maanaam dootul am xet bu hmm. naqari. d'accord wala euh, nu ma ko mën a expliquer. ñi nga xam daal seen kanam day am odeur. waaw koy dindi ma koy dindi quoi. Hmm. ma koy jël bu bari. nga hmm. am xet bu naqari wala yu demee noonu quoi wax nañ ko quoi ci seen kii bi. te mën na dem ba dina ko jox benn saveur bu neex daal yu demee noonu. donc loolu benn rapport américain nag moo ko moo ñoo ko propose ñoo ko defoon. ci loolu lañ ci trouvé. donc mu nekk plante boo xamante ni day di di enzyme de poitrine aussi. nga xam ne ñoo amee angine mhm. angine de poitrine mën buñ koy utiliser yàlla mën a dem ba mhm. saafara leen mhm. donc ñoo xamante ni dañu am des douleurs musculaires articulaires maanaam articulation yi di metti aussi bu ñu jël euh, ananas mën a dem ba douleur yooyu dina atténuer c'est-à-dire dina wàññeeku daal wax nag dina ko faj bu baax mais dina atténuer donc antiride la aussi ñi nga xam dañuy am ay ras ras seen yaram di ras waaw da koy dindi boobu jus bi rek boo ko amee def ko jus di ko di ko wut koto di ko mhm. ci di ko ci def nii. ci diw. Mhm. mais ba pare en même temps nga koy consommer waale nga koy mhm. nga koy lekkaale lu bari. dina dem ba dindi din ko. su fekkee nag da nga ko def euh, gommage nga xam ne chair bi nga jël ñam bi. def ko gommage ak huile de coco. di ko diw ay un mois. ci yaram bi. donc lépp loo xamante ni wàllu euh, kii la. Euh, lu mel ni nu mu ridd yooyu ma leen wax. waaw trait oh, yooyu ras ras yooyu. Mhm. wala ay cicatrices wala yu demee noonu. mën na mhm. mën na koo dindi. Mhm. wala ay picc kanam ak yu demee noonu gommage nga koy def waa genre oh, gommage. waaw nag cher bi nga jël mooy li ñuy lekk li quoi. Oh. jaxas ko ko huile de coco. donc defar ko noonu di ko jur pendant un mois jëm un mois et plus. di nga gis résultat yi. su fekkee ci wàllu brûlure muy lakk-lakk exemple. bu amee kii bi ñam bi di ko ci di ko ci diw nii. waaw dina dina dina ko dindi quoi ça safara fait que de gorge la bi bat bi à la aussi bo amé jus ananas diko dem ba ba mu mhm. infection urinaire. Mhm. nga xamanteni ci infection urinaire bo ci walu saw saw mhm, bu da consommer aloe vera bu Mm, ananas ananas ananas maa ngi ci aloe vera <laughs> aloe vera bi aloe vera donc moom it mën na dem ba. Euh, euh, jëndaloon keroog benn ananas. Mm-hmm. waaw effectivement. maa économie bi waaw. côté économie mi ngi noonu donc ananas. Mm-hmm. day nekk loo xamante ni mi ngi noonu donc mm-hmm. am na gis waaw comme moo nekk nii def donc bii. Euh, ma jox la ko. waaw yaa ngi doon sànq am na ko koy bay fii am na ke benn africain. waaw boo xam ne mi ngi koy bay dëkk bi mu nekk Cameroun la mhm. si dëkk yooyu mi ngi koy bay ba génn na si. waaw effectivement mais ñu lii. nii nga xam ne asiatique yi dañuy am capacité de. waaw ak tubaab yi. emballage nekk suñu problème waaw ñun suñu problème mooy emballage lii nii. mango ak ananas. xam nga mango yi sax dañ koy def. Mhm. xam ananas bii par exemple tey kii ko bay nekk Amérique latine par exemple. Mhm. Brésil wala feneen bay fa ananas su fekkoon doomu ananas la génnee noonu dem di ko jaay am na temps boo xam ne mënu koo toog. su mhm. ko nit ñi consommé wul day yàqu. mais gis def nañ ko noo xamante ni lii mën na def ay ñaare wala ñett at. Mhm. comprendre selon délai de durée conservation bi ci def. Mhm. léegi lii euh, opportunité bi mu lay jox nga mën koo jaay à travers partout dans le monde waaw. lépp ngay mën a yóbbu. léegi ubbee ubbi nga marché mondial. parce que da nga kaa transporté conditionné ko maanaam conservé ko. ok. <laughs> lii nag mooy suñu problème. loolu lii mooy suñu problème te pourtant lii jafewul nag. jafewul dañ daan def mi <laughs> <laughs> mhm. donc li ci def mooy def ay recherche rek ak yu demee noonu man wax naa la fi def naa fi sirop boo xamante ne sirop yi ñu naan boo xam mhm. trois ans. te yàqu te amul te amul sax produit chimique. Ah. lépp seen yoo xam ne ferme. nga mhm. xam ne yàquwul donc kon yooyu yi pour nga defar ko du poser problème. li ma la ci indilaat Pape. mooy que ni li nga wax nii. Mhm. pour ma dëggalal ko màggal ma dem màggal Touba. Mhm. ginnaaw kër sëñ Fallou na am na mhm. mu fekk fa ñoo xam ne dañ fay jaay am naa ci ñag yi la nag. ñoo ko fi indi ananas. ananas ay camions ay camions ci màggal gi. mais gis nga la fay yàqu. kenn xamul nu mu toll. parce que nit ñi jël naa ne dañ ko xool léegi Sénégal daa mel ni. man bi ma nekkee xale dama ko daan fàttaliku léegi la sama papa daan ñëw indaale at doomu ananas. Mhm. boo defee jël kii ko xool di mhm. ko. daggate ko lekk ko mais léegi man pour nga gis ko jaaykatu fruit bu koy jaay. sax problème la parce que nit ñi jënd ko di ko xool defatuñu ko lu tax parce que boutique boo dugg fekk fa. fekk fa po bi waaw mais loolu nag ki ko initié. dina métti mais fi ne day commencé am xaalis. Ah, <laughs> léegi dem na ba imposer ñu ko. waaw parce que au lieu nit di importer léegi doom yi. waaw dañuy importer importer pot yi. même kii ci ananas jële ko Amérique du Sud. Hmm. indi ko Sénégal di ko jaay risque yi doon jël. parce que conditionnement bi su baaxul mën na nëb et cetera mën na perte. yàq ci yoon bu indee conteneur wu poto ananas. Hmm. risque boobu dañ na ci moom. dañ na ci moom waaw conteneur bi lii mën na toog un an di ko jaay. même te ba pare sax léegi benn ananas boobu nga doon jaay. te mhm. mën nga ci am ñaari pot yi exemple. waaw c'est vrai léegi boo ko doon jaay. <laughs> la ñett sax <laughs> ananas bi boo ko doon jaay benn bi exemple quoi. waaw loolu mais exemple. Mhm. su doon jël 1000 francs mhm. léegi pot bi nga jaay benn 1000 francs léegi da nga ci am. léegi waaw waaw. benn ananas bu mag xajul ci po bi. xajul ci po bi tuuti lañ ci. waaw tuuti lañ def rek dañ ko séparé benn ananas lañ jël ko ci 3 pot wala 4 pot. waaw. donc lii nag ñun en Afrique mooy suñu problème la transformation des matières premières matières premières yëpp am na mango mënoon nañ ko def nii madd mënoon nañ ko def nii mais léegi madd bi yàqu léegi mu jeex orange bu amee période mënoon nañ ko def nii ainsi de suite ainsi de même tomate bi ñuy béy fii muy yàq mën nañ ko consoler comme ni oh, oh, oh, xaal xaal wala xaal bu amee daanaka tomate ba bu ñu defee jëndee bi fii am na li li loolu tax muy xonq noonu laneen luñ ci def loolu tomate la kay mi ngi noonu loolu am na laneen am naa darkase bi ñuy béy Casamance ah. daamaraas yi am na fa ay benn benn unité yuy transformé mais bariwul mhm. mooy li ñuy jaay yi dëkk bi Uh-huh. mais euh, euh, production bi dëggantaan dañ koy exporté. exporté keroog gis ay saako yu kenn xamul mu toll. ñi nekk foofu Casamance ñu ne dañoo bëgg état bi subventionné leen. Uh-huh. pour ñu mën a écouler affaire boobu. léegi usines yooyu ñu koy dem di jaay. lu mënuñu woon xam nga dem boo bàyyee ñu bi ay transformation boo xam ni ay cent kilos lañ mën a transformé par jour. ci ñu bay ay junni junni tonnes loolu du sotti. du sotti usine nga fi ubbi boo xamante ni loolu ñu fa bay ci at mi dana ko mën a transformé ci trois mois. Uh-huh. loolu loolu mooy affaire tey. Euh, madd bi nga wax nii am na fi benn entreprise boo xam ne GIE la xaw buy def madd di ko transformé def ci ay ay po ay affaire di ko jaay même dañ koy jaay États-Unis mm-hmm. Mm-hmm. mais ñooñu madd bi ñuy produire si Casamance yëpp mënuñu ko transformé unité yu ndaw la waa usine usine xam nga usine mooy wax ji mm-hmm. usine usine nag état moo ci mën jàpp ak ay milliardaires yi ak milliardaires ay usine waaw te usine mooy tax tamit semence bi deñ parce que benn usine rek moo mën jël ay junni nit juróom téeméer nit loolu ko benn GIE walla fabrique bu ndaw mënul loolu. te bu amee sax matière bi mën na gën a yomb. ndax ko jeex na. c'est-à-dire di ngay jaay xam nga ni boo gisee cherul. Hmm? parce que usine la. waaw fabrication de masse fabrication waaw de masse waaw kay mi noonu de masse. Hmm? loo ci defar rek mën mën nga mën nga def. loolu boo amee loo ci euh, tëjee ci vidéo ananas yi. Hmm. ñu tàggatoo ko. ñi ñuy suivre ba vidéo bi incha allah. waaw Pape li may tëjee rek mooy li nga wax ni exemple la. tey li nga joxe nii tey nit ki war nañ ko mën a eh, interpréter mhm. war nañ ko mën a copier au moins parce que affaire yi fi ne nii jàpp daanaka copie kalo ngay def nii mhm. tey lii mën nga koo gis nit mën na ci war a interpréter mu intéressé ko mhm. mu gëstu nu ñu koy bàyyee commencé ko fee bay defaraat ko ainsi de suite jeex ou bien ko fi bay peut-être mu seet beneen produit boo xam ne ñu ngi ko fi bay muy mango bi exemple am na fi la transformation des mangues des fruits et légumes nga jël ko yooyu yëpp mu ngi fi ainsi de suite ainsi de suite la première pause kii bi mooy tabaski bu jotee. Mhm. gis nga pomme de ni muy chéré. Mhm. am na période yoo xam ne day yomb. Mhm. donc pourquoi ñu transformé ko dès maintenant. nga bu tabaski jotee nit ñi duñu am problème mu pomme de terre wala problème mu soble. yooyu yëpp dañ koy importé. dañ koy importé waaw yëpp war nañ ko mën defar fii Sénégal donc yàlla baax na daal dina ñëw au fur et à mesure ñu def vidéo yi bon di conscientiser nit ñi tamit. parce que am na ñoo xam ne xëy na yor nañ seen xaalis xamuñu lu ñuy def bu yàggee dinañ ci mën a dugg. Mm. Euh, def ko yàlla baax la yàlla jàppale leen aussi. a allah merci jërëjëf professeur jërëjëf merci.